joxal ñu ndaw ñi mag ñi may yi doy naa kookaa di Seex Aliou Touré yaatal na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci ndigalu Seex Mouhamadou Mountakha Mbacké Xaadimu Rasuul yàlla na fi yàgg te wér ci ndigalu sëñ Ibrahima Touré xalifa sëñ Aliou Touré yàlla na fi yàgg te wér ci ndigalu sëriñ Basiiru Touré xalifa Seex sàmm Touré yàlla na fi yàgg te wér Serigne Mbacke Touré barikalla Serigne Mbacke Touré xasaayit ni ñëpp xam moo baaxoo woote bis bi nga xamante ne bii moom la baaxoo woote muy bisu Serigne Aliou Touré bi di ko wootee fii ci parcelle unité 18 at mu jot mu ci woo mbokki jullit yëpp di ci woo mbokki taaliba yëpp di ci woo mbokki jànkatu xasaayit yëpp waaye di ci woo mbokki kilifa yi nga xamante ne ñoo bokk Serigne Aliou Touré yëpp. bis bi nag ñëw na tombé ak la 14 octobre bi nga xam ne moom la nekk incha allahu rabbi fii ci parcelle unité 18 ku ne xam na ne nag bis bi at mu jot day seet kenn ci njaboot àll Aliou Touré gi daal di ko koy tuddee ci ndigalu sëñ Ibrahima Touré xalifa sëñ Aliou Touré barikalla mi nga xamante ne bi moo waxoon sëñ Touba barikallaahu joxoon ndaw ñi mag ñi doyal na ren nag ñu ngi tuddee bis bi daamu Daam Abdourahman Touré waaye ci teewaayu Serigne Cheikh Touré moom sëriñ Mbacke Sarr moom sëriñ Dame Abdourahmane moom Serigne Dame Alioune Touré Barikalla mi nga xamante ne bii moo yor kaddu kër sëriñ Dame waaye ci teewaayu Serigne Mamadou Touré ñu bàyyi ko ba Touba ñëw ci ndigalu Serigne Ibrahima Touré xalifa Serigne Alioune Touré ren nag noonu la bis bi tëddee euh, su ko defee dañuy jël kàddu gi jox ko Serigne. Cheikh Touré mi nga xamante ne bii mooy kaddu sëriñ Daam Abdourahmane Touré waaye ci teewaayu daayira soxna Jaaratullaay Mariam Bousso bi nga xamante ne bii ku xam sëñ Mbàkke Touré rek xam ko daayira soxna jaare bi ci ci jiit ak soxna Faatu ture mi nga xamante ne bii moo ko yàgg jiite yàlla na yàgg waaye noo ngi ci woo soxna maam Jaara Mbàkke moom Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xamante ne bii saa su ne mooy kuloo dayre bi noo ngi ñaan su borom moom mu yàggal ko lool te wére ko su ko defee kàddu bi dañ koy jot rek euh, jox ko sëriñ ture Touré mu wax ci turu waa sëriñ Dame Abdourahmane Touré yëpp waaye mu wax ci turu waa kër sëriñ Aliou Touré yëpp kon sëñ sëriñ Ibrahima Touré jotaay bi nag li ko waral. mooy Serigne Mbacke Touré moom Serigne Massamba moom Cheikh Aliou Touré di wooteel maamam bis te mu yenn ci yëpp loolu nag bu amee mu dellu ko sangam ba Serigne Mbacke Abdourahmane ñu ñëwee ci turu Serigne Bassirou muy xalifam Serigne Mbacke Abdourahmane mu ngi ñaan suñu borom yàggal ko te ko Serigne bi nag yabal ñu fi ñu tuuti ci lool nag waaye nag. Serigne Mbacke moom jar na ñu ñëpp ñu teew ma ànd feeg sama rak Serigne Mamour borom Serigne borom Touba jërëjëf ñu ànd fi teewal sëriñ bi ci kàddu ci bi ngir teewal ko rek ci bis bi. di wax Serigne Mbacke ñu ngi lay jaajëfal bu baax sëriñ bi nee na ñu lay sant tey woo mboolem ñi nga xam ni moom la bokkal si yi ñëpp di ko commencé ci njëkk toogal. Serigne Cheikh moom moom euh, Serigne Cheikh mu njëkk a toog xalifa Serigne Aliou Touré ba ci Serigne Ibrahima ñii fi nekk tey di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu téwéral Serigne Bas Serigne Basiru nee na bàyyiwul kenn rawatina nag ñi nga xam ne ñoom la bokkal Serigne Dame Abdourahmane kon mi ngi woo mbooleem ñi nga xam ni ñoom la bokkal Serigne Dame Abdourahmane di ko commencé nag ci doomi boppam yi nga xam ni. ñoom la jural boppam te di leen soññ te wax ni bis bi nan ko jàpp te nan ko fonk bu baax te wuy ji ci liñ ci war a wuy jee ndax seen banque kat suñ bis ñëpp la ko defal kon nag ñu ngi leen di woo ñëpp bàyyiwuñu kenn di ko commencé ci sëriñ Maam Seex moom sëriñ Niis waaye di wax sëriñ Soyibu moom sëriñ Ñomre Touré waaye di wax sëriñ Alaaji Niis moom sëriñ Soyibu moom mi nga xam ni moom la sëriñ bi jox jëwriñu kër gi kon ñoo ngi ko ci woo te wax ne ko ñi mu war a soññ ñëpp la leen ci soññ sëriñ Abdou Samad sëriñ sëriñ Mamoor xalifa sëriñ Abdou Samad it moom it fàttewuñ ko ndax wax dëgg mi ngi nii ci suñu wet te it bis bi ñor ko lool mu jóge ba Touba kon nag sëriñ bi ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax bàyyiwuñ kenn mboolem koo xam ne jàpp nga ne bàyyi nan la rek yow lañ jiital ñu wax woo nag njabootu Cheikh Aliou Touré yëpp bàyyiwul itam tam Bassirou ñu ngi koy yëgal yëpp ñu koy yëgal di xaritam ndax dafa am ci biir kër Cheikh Aliou dafa am fédération Cheikh Aliou Touré Barikalla kon ñu ngi koy yëgal suñu xaadim bi nga xam ni moo ŋànk fédération bi yëpp te bu ñu waxee fédération bi rek wax nañ kër Cheikh Aliou Touré yëpp. wax nañ jëwriñ yi nga xamante ni ñoo ngaan fédération bi yëpp bàyyiwuñu kenn day am loo xam ni waxtu wu nekk kenn koy njëkk a def waaye ku ko njëkk a def ñëpp la ko defal kon nag sëriñ bi sëñ Mbàkke ñoo ngi lay jaajëfal bu baax ñaan suñu boroom dimbali la ba li ngeen bëgg li ko bëgg ci sa barke ma ci sa barke maam sëriñ bi defal la ko ni nga ko bëgg barke sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa kon ñu jël kàddu gi nag jox ko soxna Sagar Diouf. mu wax ci duru turu daayira soxna jaaratullaahi Mariama Bousso leen fàttali bi suñu seen mbàkk bi la quatorze fi ci teere ñu ngi woo daayira yëpp yëpp yëpp woo soxna maam jaara mbàkk waa daayira yëpp yéen siyaare bi ngeen doon ak bu baax ak xarit ñaan yàlla sëñ Mbacke yàlla eggale bu ñu ko seetaan suñu góor wax suñu doom nag wax dëgg yàlla di suñu lépp na ko ñëpp ñoom jàpp ñu jàpp ko bisimilah rahmaan jëm ci alhamdulilah rabbil ñu ngi yow jàpp ci bisu sëñ Mbacke bi ndax mérité na. jël ko sëriñ Mbacke Touré Barikalla mi nga xamante ne bii moo woote bis bi su ko defee daal di soññ mbokki taaliba yëpp ñu doog a ñaanal dante allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu nuyoo Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi te mu ànd ak wér. noonu it lañ koy ñaanale xalifa Seydina Cheikh Aliou borom barikalla di Cheikh Ibrahima Touré mi nga xam ni moo ko fi nekkal waaye di nuyu bu baax ak siyaare sunu xalifa di Cheikh Mouhamadul Basir di xalifa Cheikh Massamba mi nga xam ni mooy caatum Cheikh Aliou Touré barikalla ñoo ngi nuyu mbokk jullit yi di nuyu mbokk taalibe yi rawatina nag mbooleem seexi sëñ Tuubaa yi nga xam ni Euh, sëñ Touba moo leen defar nga xam ni euh, bis bi ñuy woote bis la boo xam ni ci bis yi la bokk muy bis boo xam ni dañu koy def at mu jot di ci sant sëñ Touba waaye ren nag bis bi ñu jagleel ko Cheikh Aliou Touré Barikalla di ko wooteel ngir euh, kàddu gu mu waxoon sëriñ bi nga xam ni mbooleem kuy ndaw rek amee nga njukkal Cheikh Aliou Touré Barikalla ci barikàlla jooju moo ni Mbàkke joxal ndaw ñu mag ñu doyal na bis boobu nag moom la ñu fas yéenee amal la 14 octobre fii ci Parcelles Assainies unité 18 terrain bi nga xam ne mooy terrain Rabina te jàkkaarloo marché police bi euh, noo ngi koy woote ci ndigalul nag sunu xalifa Cheikh Mouhamadul Basir waaye jaare ko it ci ndigalal daayira soxna jaare bi nga xam ni wax dëgg yàlla kenn ku ne xam na sama diggante ak ñoom nga xam ni bis bi musuñu ma koo bàyyee ma wéeti daayira bi nag soxna Ayda Lo moo ko jiite woon yàlla dogal mu jiitu ji noo ñaan suñu borom dolli yërmaale ak i xéewal ci kawam waaye mu bàyyee ko rakkam eh, soxna fàttali bi suñu waajur nga xam ni boobu ba léegi dox dëgg yàlla daayira bi eh, ñu ngi ci gis ab yokkute ñu ngi ci gis avancement daayira boobu nag ñoo andando ak man bis bi di def at mu jot di ci sant Sëñ Tuubaa ren nag bis bi ñu jagleel ko nag sunu xarit sunu wóllëre tudde ko ko nga xam ni day waa kër alaaji Malick waaye bëggunu nga xam ni bërki démb rek bi sunu waajur wi làqoo euh, jóge na fu sori ñëw jaale sunu muy Serigne Cissé bi Serigne kër si moom la ñu ko tudde ren ndax kenn ku ne xam nañu bis bi daanaan def ak mu jot ñu jagleel ko ci suñuy wóllëre kenn waaye ren nag ñu jagleel ko Serigne Cissé mu Serigne kër Sy waaye nag xam naa bu ñu dee ba ci kanam ma Massamba Euh, dina tudd ñi nga xamante ni si ñooy parrain yi ak ñi nga xamante ni si ñooy marraine yi ndax bisit ku koy taxawal ku nekk euh, am na ñu la ciy jàppale moo xam ay góor la moo xam ay jigéen la ñooñu nag sëñ Massamba mii moo leen di tudd waaye nag maa ngi jaajëfal bu baax sunu waa kër euh, di sunu wayjur di waa kër sëñ Daam Abdourahmane Touré Eh, nga xam ni ci njiital Cheikh Mamadou Bachir mi nga xam ni moo fi nekk di xalifaam eh, sëriñ bi nag jox ndigal sëriñ alaaji niis alaaji niis jox ndigal eh, sëriñ Cheikh mi nga xam ni moo toog nit suñu wet dend ak sëriñ Mame Mor Touré mi nga xam ni moom ci suba la jóge Touba ngir bis bi kon nag ñoom bis bi ñor na leen bis bi nag ñu ko sëñ Cheikh waxee rek noonu la demee fédération Cheikh Ali Touré Barikalla bépp ñu ngi leen ko yëgal te xam ni bis bi doonatul bisub Serigne Mbacke doonatul bisub daayira Maam Jaara bisub àddina la ndax Cheikh yu ba muy wax waxam ja yemalewu ko ci daayira bi yemalewu ko ci ay mbokkam dañu Serigne bi joxal ndaw ñi joxal ndaw ñi ndaw ñi nag yépp a ngi ci biir moo xam murid la moo xam tijaan moo xam xaadir la moo xam laayeen bis bi nag maa ngi ciy woon ak sama kilifay bopp yi nga xamante ni si yàlla moo ñu boole ma nekk ak ñoom ñii di waa kër Alaaji Maalik ku ci mel ni Baye Ablaye Ndiaye Socé Euh, di sama xarit di sama lépp waaye nag di ci woo koo xamante ni si kenn la ci ñu muy Serigne Abdou Aziz Ndiaye naar waaye di ci woo nag Serigne Issa bi mi nga xam ni kenn ku ne xam na sama diggante ak moom euh, nga xam ni moom nit ku baax la koo xam ni euh, mu xaddamu alaaji abdula waaye nag bëggal ñu boppam ngir Serigne Touba ak xasaay yi waaye nag di ci woo nag sunu xarit sunu wëlëre premier ministre Amadou Ba ñoo koy woo bu baax di ci woo it ministre Mbaye Ndiaye ñii ni woo ñëpp nag dañuy suñuy nit di suñuy xarit te yu mel nii boo ko amee it faaw nga am ñu la ci jàppale euh, di ci woo it suñu xarit euh, monsieur Pape ñoo ko ci woo bu baax a baax di ci woo suñu jigéen suñu wayjur Adja Soda Xuma mi nga xamante ni si mooy jëwriñu kuréelu julli géej gi maa ngi ko ciy woo bu baax a baax di ci woon ak sunu xarit sunu jigéen Adja Ami Ndiaye madame Kouma waaye it di ci woo Adja na fi Diop madame Kouma ak mbooleem ñi nga xamante ni si eh, ñoo ngi nekk ci Ndakaaru bii di jàppule waaye nag di ci woon ak sunu sëriñ mi nga xam ni maa ngi ciy jégglu sax sama xel moo ci génnoon moom laa waroon a jiital bi ma jógee ci sëñ Muntaxa ak xalifa Cheikh eh, Adiyu muy sëriñ Abo bu sa imaam sëñ Abo sunu sëriñ la. nekk fii ci parcelle bi surtout suñu Mbàkke Buso nga xam ni saa su nekk damay wax yow ñoo bokk maam ñoo bokk lépp ma wiñu ko nga wiñu ko it doon sama jànkat kon sëñ Abo maa ngi koy woo ci bis bi ak mboolem waa kër Sëñ Mbàkke Buso yëpp di ci woo it mboolem waa kër Cheikh Issa Diène yi ndax ku wax Cheikh Aliou Touré di nga wax Cheikh Issa ndax man mii euh, Serigne Mbacke Diène lañ ma tuddee maa ngi ciy woo xalifa am di Cheikh Abdou Latif jenn moom Serigne Mbacke ak mboolem kilifa yi nga xamante ni rek seq nañ ak ñoom jàmm da loo xam ne nag mënuñoo tudd ñëpp waaye bu ñu mënoon a tudd ñëpp kenn ku ci ne danañ jaar ci sa tur woola ngir bis bi ñor nañu ñor goo xamante ni si bu ñu sañoon kenn ku nekk dana na ci woo waaye di ci woo it monsieur le maire Jamil mi nga xamante ni si mooy maire Parcelles Assainies waaye sunu xarit sunu wóolare du ñu ko fàtte muy Moussa Sy PCA Port ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax. te di ko woo bis bi Adja Khady Diop Sow ajaratu tuuti mbay bàyyiwuma kenn Adja Mbaye njaxasoo bàyyiwuma kenn waaw maam Thierno nag moom lay tëje muy maam Thierno Sani moom Cheikh Modou maam ba ma njëkkee bis bi di ko lal kër gi moom rek laa fi gisoon ci ba léegi ñoo ngi koy ànd maa ngi te di ko fàttali bis bi di ko ko yëgal di ñaan nag euh, képp ku ci teew yàlla si sëñ Tuubaa faj say aajo sëriñ Modou Diouf gaynde ak sëriñ Cheikh Saliou maa ngi koy nuyu te di ko woo ci bis bi moom sama diggante ak moom jëratu sax nit ñëpp nit ñu bari xam nañu kon nag bis baa ngi noonu la 14 octobre la 2023 fii ci terrain Robina en face marché police euh, Cheikh Moussa Ndiaye Al moom du ma ko woo ndax li tax du ko mooy man maay moom bis bi bisam la te ki nga xam ni moom lan parrainé bis bi ñoom ñaar ñoo bokk lépp muy sëñ ab Abdou Khadir Jaay kon nag sëñ Moustapha bis baa ngi noonu soxna Astu Kunta eh, moom it maa ko ci di ko ndokkee nag ci bis bi ñu génn démb Jaasaan di ñaan suñu borom may nu ñu fekkewaat ko at yu bare bare bare eh, noo ngi ñaan daal bis bi daal képp ku ci teew yal yàlla yokk say xéewal soxna maam jaara muntaxaa moom kenn du ko fàtte mooy borom bis bi ndax fu ñu tuddee daayira maam jaara xam ngeen ni tudd nañ fa jàmbaari maam jaara yi te soxna jaara ba ma dalee def bis bi ba léegi ñoo koy ànd saa su nekk moom itam kon maa ngi koy woo ak ci turu nag mbooleem jàmbaari maam jaara yépp bàyyiwuma kenn góor ña ak jigéen ña mag ñi ak ndaw ñam ci woon nag soxna yu baarikàlla yi soxna yu baarikàlla yi nag bu ngeen ko déggee mooy soxna yi nga xamante ni si ñoo tënku ci mboolem fédération Cheikh Aliou Touré ñu euh, tudde seen bopp soxna yu baarikàlla yi ci ndigal ci njiital nag soxna Ami Maroon sunu mag maa ko ci woo di ko di ci woo mboolem soxna yu baarikàlla yëpp waaye nag di ci woo nag sama magi bopp sama xarit sama soppe nga xam ni kenn ku ne xam na sama diggante ak moom ñu bokk bàyyi muy soxna Fatou Bintou Rasoul bu alaaji Cheikh Touré maa ngi koy woo ci bis bi ndax moom day xam na ma xam noo ngi koy ñaanal suñu borom guddal aw fanam waaye koñ bi nag maa ngi leen di woo bàyyi góor a njaay ah bàyyi saaliw ñang mi nga xam ni këram lañu nekk nii di ko fi defee moom it ak mu jot dana jàpp ci bis bi eh, sëñ Amadou Fall eh, sëñ Moustapha Badiane sëñ eh, Ablaye Diouf sëñ Mbaye Ndiaye koñ bi daal bàyyiwuma kenn mboolem mag ñi nekk ci koñ bi yëpp maa ngi leen di woo ci bis bi wa rahmatullah waxee mbokk xam ngeen ne nag bis ba buñ ci yàlla yóbba ak jàmm alquranul karim lañ ciy jiital comme ni mu amee ci bisu sëñ Tuubaa yëpp fu daara nekk ak fu daaru nekk rek ñu bàyyi xel alquran ji ak xasida yi bëccëg gi itam dana am ay bernde yu ama ama am solo yoo xamante ne bii ah, dañ koy bernde waaye bu guddi gi jotee nag danañ bernde ruu yi ci xasida ak waxtaan ak Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul waaye rawatina sëriñ Aliou Touré barikalla mi nga xamante ne bii moo woon sëriñ Tuubaa barikalla joxal ndaw ñi mag ngi doyal nan bu naagee ci guddi gi nag sëriñ Xaadim Kebe insha allahu dana fa jàng njàng solo comme nam ko doon baaxoo defee sëriñ Xaadim Bey jëwriñ itam dana fa jàng njàng am solo comme nam ko daan baaxoo defee sëriñ Modou Galas itam dana fa jàng njàng mu am solo comme nam ko doon baaxoo defee sëriñ Aksa Samb itam dana fa jàng njàng mu am solo comme nam ko doon baaxoo defee waaye nag bu ñu àggee ca waxtaan wa nag nga xamante ne bi dañoo war a waxtaane gaa yu baax yi ni nga ko waxee léegi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ak njaboot gi rawatina Seydina Aliou Touré Serigne Saliou Samb moo def waxtaan wi ak Serigne ko na ko ñëpp bàyyi xel allahumma salli ala Seydina Muhammad wa sallim jaa ngeen jëf kàddu yi balaa xulub Cheikh Bamba mu wax ko Cheikh Aliou Touré dongom